الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلت لساني نوير جناني صفي أماني وزير براي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki julli li mbokki taalibe yi gannaaw ba ñu santee suñu boroom subhaanahu wa di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di sant Serigne Touba sunu yaakaari teeg ëllëg ñaanal alxalifatul am li tarixatil muridiya Serigne Muntaxa yàlla guddal ak fanam teewlal ay jërëm di ko ñaanal njabootu Sëñ Touba gépp ak jullit yëpp ak fu mën a nekk ci ci kaw suuf mu mel ne ñu ngi ci fan yu am solo muy fan yi dugg ci bis bu tedd boobu yi di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mu mel ni bis nag dana am solo lool bu dee ñëw ñu ñu waajal ko ndax bokk na ci liy tax ñu xam ne jox nga bis bi itte mooy nga waajal ko te Serigne Touba dafa waxoon ne fu ñaar nekkee ci kaw suuf kii di ko fonk kii di ko ñàkk fonk ki koy fonk du dañ di gis li mu rawee ki ko dut fonk te bokk na ci fonk bis bi mooy waajal ko ci waajal googi nag moo tax Assalaamy FM ci njiit sëñ Fallou Galass Sylla ak mboktaal bi mu ko àndal di waajal ay jotaay yu am solo ci rajo bi 99 point 0 waaye itam ci site bi Assalaamy TV ci YouTube bi ay jotaay yoo xam ne lépp day jëm ci màggal gi ngir nun ko war gën a mën a waajale ba mu gën a mën a dëppoo ak ni ko sëriñ bi bëgg xam naa du yomb waaye ñu jiim ci rek ci loolu nag moo tax tey ñu dalal fi sunu mbokkum taalibe di sëriñ Biya juuf ñu war a seq moom jotaay boo xam ne lépp dafa jëm ci wàccaayu màggal gi ci jëmmi lu waral màggal gi ak itam jëmmi sëriñ bi digle jum ko digle ak itam nun ko war a defe ak kenn ku ci nekk rek lay sa taxawaay ci bis bu tedd boobu yi ñu war koo bàyyi xel baax a baax kon jotaay boobu yi ñu war cee ànd ak sëriñ alxaaji Biya Diouf euh, ci waxtaan wu war a yaatu lool nag xam naa feeg benn waxtu rek incha allah ci kàttan yàlla ci lañ koy war a amal kon dañuy wàccee sunu kàddu foofu jox alxaaji bi yaa juuf bu ko defee mu nuyoo su nuyoo pare nag ñu doog a tàbbi ci waxtaan wi gën ko yaata incha allah ci kàttan yàlla kon alxaaji bi yaa bismillah bismillah saan rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuubaa Euh, Cheikh bi ñoo ngi lay siyaare bu baax a baax di siyaare téléspectateur bi nekk ci YouTube bi ak Facebook bi mm-hmm. ak euh, auditeurs yi nga xam ne ñoo nekk ci Assalaamy FM mm-hmm. euh, ci njiital sëñ Fallou Galasi la mi nga xam ni mm-hmm. jataay bi moom defe naa ne lépp ñetti at bëggoon na ko waaye xam naa tey jii la ko suñ borom dogal di sant sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax nag ci jataay bii li ko waral li ko waral nag moom mooy kenn ku ne xam na ni buñ nee safar rek màggal la te muy bis boo xam ni benn la ci bis yi hmm. muy bis yoo xam ne boromam nee na am na fii ci àdduna waaye am na fañ jëm hmm. ci àllaaxira euh, muy boo xam ni moom rek la boromam waxoon ni sama kent matale woo ko na ngeen ma ci santale hmm. muy bis boo xam ni daana wax ni li ngeen di ci man bu ngeen dul bu doonul bis bi bu ngeen fi ñëwee du ngeen fekk dara kon bis booboo tax ñu wax mm. di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mm. mu yàgg fi te ah. am kàttan lool ah. gën fee yàgg lool lool lool ah. yàgg jiite jataay Cheikhul Khadim bi ñu ànd kook moom euh, di wax ni nag euh, mm. kontaan nañ bu baax a baax a baax ndax yàlla dogal na xam-xam bu ñu mën a am xam naa ne am nañ lëf ci lu ñuy wax màggal Tuubaa muy di ju safar ndax yitte yi moom jenn la foofa la jublu pas-pas bi tamit benn la ci màggal gi la jublu. Mm-hmm. programme bi tamit benn la ci màggal gi la jublu. Mm-hmm. nga xam ni daanaka. Mm-hmm. ku ñuy suivre ci suñuy statut ak suñuy lépp moom màggal gi rek lay wax. ñaata fana ci des ak. kañ lañ koy def ak loolu. kon tey jii nag boo fekkee invité nga ñu ci loolu. loolu dañu sant suñ tubaab baax. nga xam ni jekk nañ ci. lu ñu ci laaj rek. def naa des nañ ci wax lañ ca tolloo ca suñu xam-xam. jërëjëf <laughs> jërëjëf Serigne Alhaji Biya Diouf euh, nuyoo am na solo lool. Euh, te itam rafet na lool macha allah ndax màggal gi moom comme ni ko sëriñ bi waxee rek moom moo ne yàlla ma defal loo xam ne dama lottu ci sant ko dama lottu ci sant ko gannaaw dama lottu ci sant ko ne kon ñëw leen santale ma yàlla hmm. loolu waxin la ndax sëriñ bi moom ci li ko yàlla may ci maqaama ak daraja yàlla mayu ko woon mu lott ci dara waaye bëggal ñu bëggal ñu aw yiw ak bëggal ñu lu baax ak bëggal ñu texe ak ëllëg moo tax mën a ñëw leen sant ma yàlla ci bisam bu tedd boobu nga xam ne fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci la génne fee ca baar yi tàbbi ci liggéeyam bu tedd boobu yi nga xam ne liggéey na ko juróom-ñetti at yu manqué ba ni muy ñëwaatee fii ci réew mi ba ni muy demee njaareem ba bis boobu nga xam ne bisum nattu la woon mu toog di xaar nattu yàlla xamal ko ne ko natt yi jeex na ak pay moo ci des kon pay goo ko boroomam fay nga xam ne dootul jeex ba faw pay goo gi la yéene jullit yëpp tax mu fas yéene ko bokk ñoom tax mu woo leen ne ñëw leen sant la ma yàlla ndax la in sakkartum la azidannakum wala in kafar in azab la shadid kon cant moom ndol leen képp moo ci mën a jóge ndax yàlla moo ko wax kon fi ñuy tàbbee ci waxtaan alxaaj biyaa mooy jëm mi li waral bis bu tedd boobu Sëñ Tuubaa woote ko muy bisu màggal gi waa bis bi moom sëñ Tuubaa li ko waral ku tedd gi Ahmadou Khadim mhm. moom samedi 18 août 1895 la waajoon ca Mbàkke Jolof gii Mbàkke Baari Jolof mhm. bis boobu nga xamee ni ci la waroon a dajeeg noonu ya mhm. jug bis boobu nag la sëñ Tuubaa defoon moom mu jàpp ko muy bisu cantam kon boo seetloo 1995 ji weesu ah. ca la woon centenaire màggal Tuubaa kon moom jàppoon na bisam mm-hmm. laata ndogal bi wàcc mm-hmm. bi mu ko jàppee tamit noon daana wax ni mm-hmm. saa waxtu woowu jotaatoon ci biir liggéey bi nattu yi day gën di tar di gën di mitti fu mu ko fekkoon da koy gën a aj uh-huh. waaye yàlla dogal na nee ba at mujj ci njaareem la sëñ Abdou Lahad leeral di ko wax ni xëy na bis rek mm-hmm. fas yéene tegoo nattu yaan uh-huh. nam ko daan tegoo doon ko séentoo nam ko doon séentoo mm-hmm. dafa lu dul sëy naa jib di ñëw ni ko sama borom nee na bis ni ko tey nattu na mm-hmm. sama borom xamal ne li nga dugg lépp dafa na la ko ci bis bi kuy sokkook na la sant suñu borom ci bis bi loolu nag tax na ku tedd ki woote ko bi mu koy wootee tamit kenn ku ne xam na ni at mooma noonu mu war koo woote fam daan yeew ñaari xaram ya mhm. muy xaru boppam ba ak xaru soxna jaara la uh-huh. at moom maam yeewu ko fa hmm. bi ñu tabaskee ba noppi mhm. bisu tabaski gisuñu ko mhm. bi ñu tabaskee ba noppi moom bi mu ubbee woolu na Malick Ndiaye uh-huh. ni ko wool ko Balla Faali Isaa Jenn uh, maam Cheikh Ibra Fall maam Thierno wax fere yu mag yooyu yëpp ñu wax tamit woote donc yëpp ñu dikk uh-huh. bi ñu leen xamalee lan leen sama borom xamal na ma ne liñ doon wut yëpp bis ni ki tey natt yëpp jeex na. Mhm. kuy sama kook na ma sant la suñu borom. Mhm. damaa bëgg bis bii di ñëw weer wi bu matee ba wee mhm. ñëw ba mat. ba wee ñëw ba mat ba mu fukki fan ak juróom-ñett. na ma ko defee ni tabaskiwaat. sama borom xamal ni ma li ma doon wut lépp defal la ma ci bis bi. te bu doon wut bis bi bu ngeen ñëwee ci man du ngeen fekk dara. ginnaaw loola nag information bi daal di jug ñaan tabaskiwaat tabaskiwaat ki leen woowaat. neen loolu day nu bidaa. te dara bidaa taxuma. nañ màggal. Mhm. baatu màggal keroog lañ ko njëkk dégg. Mhm. ku ko njëkk dégg rek ci Sëñ Tuubaa la ko dégg. Mhm. mu ne su ko calculé ci wolof. mu ne su ko calculé ci arab. waaye moom Sëñ uh-huh. moom moo ko jàpp. loolu nag ci borom xam-xam yu sell yi nga xam ne dañuy gëstu. Euh, gis nañ ni baatu màggal ab tënk la. ndax màggal buñ la ko doon bindloo. miim ngay bind. kaaf ak laam. miim gi mhm. mooy mawlidu nabi keef gi di kas rajab mhm. laam gi di laytul xadr boo ko seetee ñetti yooyu tamit mhm. ay bisi guddi la dëgg la bisi guddi la waaye boo ko ñëwoon tey di ko seet ci suñu yoon wii nii da ngay seet kenn ku ne doomi suñ Tuubaa ko lañ ko jagleel gàmmu suñ saaliw laytul xadr soxna may kas rajab suñ fàllu <laughs> waaye nag loolu suñ Tuubaa moom da koo dëxëñ ñu defal ko ko ak yoor yoor ah. muy màggal gi muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar waaye mag ñi ñoom bañ ko déggee. Mhm. dañoo jël seen yitte yëpp rek mhm. santale suñ suñu Tuubaa ci bis bi. Mhm. nga xam ne kenn ku ne loolu moo di wàccaay. ndax suñu Tuubaa bi ñuy wax tabaski la mu ci jubloon bis bu gën a neex tabaski. waaye nag bi mu nuree nuru bi daal ñu koy wax loolu ci la leen wax ni. maam nañ ko def. màggal. booba nag daan nañ ko defee njaareem nañ ko daan defee ba waxtu yu jotee kenn ku ne fexe say njaboot bég xotti seen yëre yu rafet. daal di def seen i bernde. Mhm. jàng seen i alxuraan. Mhm. jàng seen i xasida mhm. ba déwé na ci. dëgg la waaye nag 1945 bi Sëñ Fallou ñëwee Touba. ci yéen Sëñ Touba lu ñu ko defalee fu ne rafet na. waaye Touba nag ci lay gën a matale. ci la woo ñëpp nag ñu ñëw di màggali si Touba. loolu nag moo taxoon nag waa Touba. amee sas wi. Mm-hmm. waa Touba nag ñoo ñu am tawféex dalal gan yi mm-hmm. dalal gan yi nag xam naa mm-hmm. euh, sëñ Tamsir Gueye buñ fay egsiwaatee dinañ ci gën a leeral waaye lii moom mooy màggal gi tubaarkàlla macha allah sëñ alaaj biya waaw mu am solo lool ci kàddu yi euh, te itam ñu déggaat ñu dégg ci sa biir yi wax sëriñ bi jox gi mu joxoon itte sunna ndax mu ne bu ngeen ne màggal tabaskiwaat day mel ni bidaa te moom la mu waxoon moom daa leer li Moustapha nawaytu ma yëddu sunnatul xarra wa inni ahmadu mm. kon gannaaw ñëw yeesal sunnaa ko taxoon a jóg mm. kon du ci yokk leen loo xam ne luy nuru bidaa la mm. kon bis bu tedd boobu nga xam ne li ñu miinoon ci doomu aadama mooy bis bu ko yàlla tegee mayee xiiwal lay jël bisub cant waaye sëriñ bi moom moom rek am bisub nattoom bisub nattoom la jël mu jël ko def ko bisub cant bisub cant loolu itam looñ ci mën a fàttali tuuti tuuti loolu moom li ma la ci mën a xamal mooy. Mhm. moom xamoon na ni. Mhm. lam waxoon maam Thierno. Mhm. ca keroog ca fajar ga. ba waree ca fasam wa daal di jël ñaari loxo yi tedd teg ko ca loxo euh, bopp suñ Modou Moustapha ak sëñ Fall. ci la naan ko Thierno bu ma yàggal. démb ca tàkkusaan Mhm. jaan daati mbeer ba ma taxawoon mhm. xorondom yi nga doon dox sa tànk yi maa ngi koy gis yaram déw ma fenn damay liggéey sama borom mhm. rek te ñëw dama bëgg sama ñaari doom yi foo ma leen mën a téyel nga téyel ba ma delsi waat kon moom xamoon nañ day delsi ci tukki bi moo taxoon mu tàmbali cant gi googu ba ñu ñëwee njaareem suñ borom kaseel ko ko tamponel ko ko confirmel ko ko ci la wax ne nag moom moom dong di ko cantate doyatul kuy sama dëgg la foofa nag damay wax rek li wax naan gor su la ma saana teral mhm. da ngay ñaan yàlla nga am bis ba ma rey sama bopp te ah. naatale wuñ suñ tubaa teral lañ te am na bis mhm. mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar waaw mhm. ndax ñun suñu lépp suñ tubaa la dëgg la waaye nag gore day am ci bis bi ndax kenn ku ne xam na ni fu mu sonnee fu mu jàqee suñ tubaa lay xalaat moom lay woo waaye kooku mooy kan mooy ko am bés kañ la am bis fukki fan ci war a def damay wax rek nii yëfi àdduna yii rek. Mhm. Euh, bu ñu ci masaana sedd nit guro. Mhm. rek wala ñu sedd la tàngal. da ngay sa sago. Mhm. di xaar bis ba. di xool loo ca dajale. boo amee nat ca nga koy nat. bu fekkee ni da ngay jaay dara da ko ca jaay ngir bis bu ñëwee. nga wane sa bopp ndax dañ laa seddoon dara. waaye suñu ci nag weesu nag ñu sedd. ndax la may wax ni. moom daa woote. ñu kuy sama kok kok suñ Tuubaa nag moom. mooy ku féetee ak moom. ndax ñun mhm. suñu bëgg-bëgg yëpp suñ tubaa moo ko matale mhm. liñ bëgg yëpp suñ tubaa ngi koy defal waaye daa bis mhm. bu amee bis nag bis boobu moom waruñ cee demee sago moo tax nag mu deel si waat ci biir bis bi naan ku ci raw raw nga ci ba faw dootee dabe kon bis bi am na concurrence dëgg la waaw ku ci xoolee tuuti rek mbaa nga xaw a yaafus rek daa ko lay romb kon <laughs> kenn ku ne war naa fexe loolu tubaab naan ëpp gaam. Hmm. maam nga nga nga nga nga nga taxaw ko say gan. la fexe ba. Hmm. du ñu manqué dara. Hmm. loolu bu ñu ci duggee. dina am ay détails yu ñu ci indi yoo xam ni. nan la ñu war a mën a taxaw a gan yi. incha bu ñëwee ci noonu ko war a waajal dana gën a yaatu. incha waaye nga xam lu am solo mooy li ñu war a goree pour pour delloo sëriñ bi njukkal. waaw ndax day mel ni moom bi muy tukki. ñett la wax ne moo ko tax a génn. moo tax mu fàddu. mu sa a xayma muy am daraja ji kawe ci yàlla mhm. ak liggéey li de sala salaam ak ramm aw xetam mhm. kon ramm moo ko taxoon a génn mhm. te itam li si saa wax ne bu woon ak sa dem ko nasaraan te bi te kon ñëpp dem niiraan kon dem gi kon ak jot la ci sawara ci képp ku nangul seen jubaa ki la jot ci sawara kooku bu wootee mbir maanaam dama bëgg nga xuusal ma ci dëgg-dëgg ku ki la jot ci sawara te sawara doon loo xam ne moo tax moo jaaxal ñëpp mm-hmm. ki la jot ci sawara kooku su wootee mbir noo ci war a taxawee dëgg dëgg dëgg ba man caa làq ngërëmam waaw foofu mooy li may wax rek mm-hmm. maam xel moom ngay dàq mm-hmm. xel ngay dàq màggal moom murit bu ko dee def day miiraasu ndax ki la jot waaye jamono da ngaa ko jotu rek waaye tawféex yi gii ñuy dund sëñ Tuubaa lépp waaw lépp waaw mm, lépp mm. ji ñu dund nii mm. sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa mu ñu defal tawféex joo xam ni ñun mënu si koo fayati tawféex àdduna jeeg boo ci yemee war nañ koo mën a fay ba sonn du jeex sëñ Tuubaa moom impayable la la sëñ Fall doon wax naan bor boo xam ne du jeex nooy def ak borom bor ba Mm. moo ko loo am di ca dawtal rek di ca dawal bokkar du mat du mat mm. mais loo am di ca dawal waaw suñu Abdou ni koo xam ni loo jël bëgg ko koo sante muy ay mbiram nooy def moom mm. dox ci bëggam lu mu bëgg ku ko santale boroom ci bis bi kon foofa moom la ca jiitu mooy fexe cant gi matale waaye la ca jiitu ci biir cant wax cant bernde ak jaamu yàlla cant nag bu ñu ko waxee environnement bi nga nekk ci périphérique bi nga nekk. Mm-hmm. moo xam kër la. Mm-hmm. moo xam néeg la moo xam foofu war a nekk. Mm-hmm. bu nit ñi ñëwee war naa xemmeemu. loolu war na tey gis nga ni li gën a jar ci màggal gi. mooy karo. ak peinture. li ko war a mooy yeesal gi. yeesal gi loolu nag dafa war. bépp espace. boo xam ne mu ngi ci dëkk bi rek war naa xam ni màggal jot na. ab néeg doon takk sa néeg bu mënoo caa soppi dara. changer dispositif lal ba sax. Mhm. ñu xam ne am na lu fi xew. Mhm. loolu am na solo lool. Mhm, ndax daa bokk ci xeeti wàccaay. sëñ Abdoulaye daan koy faral def yenn saay daana def ni bu màggal jub see mu dem belal. toog fa ba màggal jub si mu ne maa ngi màggali ci. ngir gën a jëlaat ak fa boobu. waat ci bis bi. macha allah bari aana lu bari lu ñu xamaat ci màggal gi. Ah. moo ñu ko leeral ay soññam ak ay yëgleem. ci niñ war a mën a téye gën a téye téye màggal gi. waaye ñun moom. waruñu cee mën am sago. ndax kiñ bëgg. yaakaar ko mu teral ñu àdduna. dig ñu àllaaxira te loolu rek ka taxul mu dem géej ba ci sonn. coono ñu ko doon teg yëpp mu xëy jeex lu ko waral mooy dañoo war a sant. kañ lañu sant muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar. ah kooku nag moom. képp ku ci yaafuus. da ngaa góorewul. dëgg la waaye sëñ Tuubaa moom. Mm-hmm. maam wàccoo naag jaam ñi. Mm-hmm. du yëfitu murit tamit teg ci rek. ndax sëñ Tuubaa moom ñëpp la ñaanal. waaw irham jami xalwaraa la wax mm-hmm, mm-hmm. yaa may dégg naan la sëñ Abdoulaye wax naan ñaan ba ñaanal réew moom dëkk naan wax na xëy xaasal bala di wari xaw ba takki ni ànd ak di lu ngeen fi gis mooma mm-hmm. réew mii yombaayu réew mii yëpp sëñ Abdoulaye moo ñu ko ñaanaloon sëñ sëñ Tuubaa moo ñu ko ñaanaloon sëñ Abdoulaye dañu ko leeral kon yëf yi yemale ko ci Sénégal kon màggal gi nag ñun ñëpp ko war a def. Mhm. waaye ci biir loolu nag dafa amaat yeneen neex-neex yu ci nekkaat. Mhm. ki bëgg a màggal rek bu xasee bëgg naa màggal rek ba nga xam ne bëgg naa màggal. dëgguma la sax ndax moom gannaaw na ijhaar rujuu ilaa xam ne saa na. Mhm. wala takk fi naa yama jëmi xalqi yàlla mu def ak delloom ci aw nitam mu doon seenu texe. fekke leen sawar a ëllëg. waaw te itam nitam nitam ñooñi. képp ku gëm yàlla yaa ngi ci biir. képp ku ko nangul rek yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir ngi ci biir. kon loolu yaakaar naa jar na jar na lu ne hmm. coono bu ne nit ki daj ko hmm. ngir def mbégum Sëñ Tuubaa moom yi te hmm. moom woon na ijaal ju ma ne ju ma wax lu am na ba pare waaw lu am na ba pare confirmé waaye lu ma wax rek am na ba pare wéyalal ne ko waaw foofu maam taxawaay bi nan nan lañ ci war a taxawee loolu maa ngi wax ni ku ci raw ku ci raw nag léegi nag dañuy ñëw ci cant gi muy environnement bi mhm. maam nan lañ mën a fexe ba dal yi rafet mhm. murite mhm. bu fekkee yàlla dogal na sa kër këru gannus la wares na koo mën a lay layaat ko layi na woo xam ni ku ca dugg boo jógee dana nooy nooyaay boo xam dañu xam ni kër gii kat ni mel nii melul noonu ndax sëñ saar yi defe ni àjjana ci temps rek la ñuy dund nii amul ay suba ngoon ak bu dégg bëccëg waaye nee na fu fukki fan ak juróom-ñett dikkaat yàlla muy neex neex a suñu barab bi yëg ko mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. jëm yi yëg mm-hmm. xale yi yëg ko mag ñi yëg ko ñëpp xam ni màggal jot na di ko yàkkamti tamit teg ci rawatina xale yi ci kër gi war na ñoo fexe lépp lu ñuy soxla woo luy neexal seen i mbir lañ daan faral di soxlaw ñu ful ko di leen ko defal ci bis bi dëgg la <laughs> masha Allah yaa ngi dégg waaye nag euh, màggal li nit ñi rawantee mooy rupture warta am ci màggal rupture bu ma la waxee rupture. Mm-hmm. mooy ñi dëkk masalan gosaas. Mm-hmm. am na lu ñu doon dundee gosaas. Mm-hmm. war a dikk fii nii di nga gis gan goo xam ne day wàcc ci kër. ñu dalal ko barab tegal ko mat laa. waaye saagam lay jël njegeñaayoo ko ngir foog ñi day tëdd. kooku am na rupture. ndax këram dafa def njegeñaay dafa dafa njegeñoo mooy saag. kon fu mat laa war ak dara. njëge njaay ma nga ca wet ga mm-hmm. sant nañ yàlla nag ba xam seddaay bi génn nañ ko mm-hmm. waaye jamono ñu daan def sedd mm-hmm. man tey sama kër boo fa ñëwoon daanaa wut sama mbàjj jox gan yi ñu sàngoo ko ndax génn kër gan goo xam ne daa mel ni bi fa amoon lu mu amul fii kon loolu na ko gan yi bàyyi ko xel waaye damay wax ne ak gan bu ñu fexee ba mu dal ci kër gi wutoo ko man laa bu mu tëdd tegal ko njëge ñaay gan yi gis nga ñëpp dañu am portable ay chargeur war naa mën a bari Mhm. fexe prise yi bari. Mhm. fexe chargeurs yi jege leen tamit teg ci. Mhm. donte que ak randalkat yi nga xam ne dañuy faral di tuxal. tax na war naa mën a ñëw ci kër gi wut fa prise boo xam ne dana mat fukki prise. am ku ñu ko dénk koo xam ne. ku bëgg a charger day ñëw di ko charger. dëgg la bu waxtu yu jotee mu delloo ko ko. nga xam ni loolu dana doon jàppalal ci moom. waaye di nga gis gan koo xam ne. dana am chargeur bëgg prise bu mu ko def mu tëb. loolu tamit. na ci borom kër yi bàyyi xel. Mhm. bu fekkee bâtiment bi bëriwul prise. Mhm. nañ jëndi relance. ba nga xam ni. Mhm. nit ki nga xam ne moo dal ci kër gi daal doo am loo xam ne lu muy étonné la loo xam ne da koy xaw a jaaxal man da bëgg naa sarti waaye aw ma man da bëgg naa fu ma tëdd waaye aw jege ñaar yaa ngi dégg yooyu ay xeeti sew sew la wi fii bii nga xamee ni mi ngi am kenn ku ci amoon yenn méga yi danga ko gën a yokkaat mhm. te xam ne da ngay am ay gan mhm. te war nañuy connecté <laughs> yaa ngi dégg mhm. kon connexion dafa war a am danga xam nag ab gan bu ñëwee tëdd ci man laa bu nooy njege ñaayu nga tegal ko bi fii moom chargeur ca wet ga loo fa indiwaat dama naa gën a toog <laughs> ndax lu bari dina mat ah, kon yooyu ay sew sew la yoo xam ni ah, day day xajamal day xajamal bis te loolu daa war a bokk ci bis bi waaw dafa bokk sax ci ci teral euh, gan waaw te yonti moo ku gëm yàlla gëm bis penc ba mhm. nay teral gan mhm. am na solo loolu macha allah suñu alxaaj bi ay li nga leeral macha allah mhm. te itam ay soso yu mat a bàyyi xel la yu mat a bàyyi xel la yu yomb a fàtte la nag waaw yomb naa fàtte lool am na ñoo xam dañuy xaw a sant sekk ak jaw ba lii lu mat a bàyyi xel lu mat a yaatal même bu ñëwee ci lekk ak naan gi war nañoo fexe mun naa balaa ma ñëw lekk ak naan gi sax maa bëggoon tuuti ma balaa ma koo fàttee suñ tubaab baat bi mu jël. muy hmm. sukkur. sukkur. muy muy sant. sant. waaw manoon naa digle geneen jaamu yàlla. waaw waaw. waaye dafa jël baatu baatu hmm. sant muy sant yàlla. Hmm. maanaam baatu sant yàlla boobu. ban laasa ban gendeeku nga ci am. ci ni ko sëñ li tax sëñ bi digle wu ñu santale ko borom. baatu cant ci boppam rek. waa xam nga sëñ Tuubaa moom. lam doon ba mu ko amee. yaa ngi dégg ñu xëy ni ko maam. ak cant ci des cant gi mu ne sama cant bopp mënu koo matale mu ngeen ma cantale moom dañoo waxaat ni ñuy sante dañ koo digal wax ko cant gi quatre-vingt-quinze pour cent yëpp bernde la ndax dafa ni li ci dalee ci ginaar ba ci gileem fi mu tuddee cant automatiquement rek waxul nañ ci jàng naa naa ngeen kaami wala nañ ci jàng naa ngeen xasida yaa ngi dégg kon cant gi moom la ci ëpp lépp lépp lépp lépp bernde la léegi nag ci biir bernde gi cant dëgg-dëgg nag dañu am xaj ak seet mm-hmm. da nga ko war a def rek mm-hmm. te xam ni gan ñi xamoo ki ma bokkal ak ki ma bokkalul mm-hmm. waaye danaa bëgg rek képp ku ma dalal dinaa fexe daal ba mu kontaan bu ëllëgee dina ma de passage sax maa koy wax moom maa ngi ñaan rek ku amul fu mu te bëgg a dal ma contacté dinaa fexe ba mu dal insha allah loolu moom bëgg naa ko samay de gan tamit doyagul te bëgg naay gan tamit tekki <laughs> waaye nag Euh, fexe ba nit ñi bëgg mm-hmm. loolu moom la ku tedd ki bëgg mm-hmm. mooy muy gan yi nga xam ne dañ leen di ganal loolu si yam daal baax na ci wax ni bis boo bu la ñor boo fonk mm-hmm. da nga koy gàttandu hmm? mu mu ni ñuy def gan da nga koy gàttandu teral ko daal di gunge ko te fi nii nii boo gisee activité yi nga xam ne moo xam ci dëkk bi xam ne waa dëkk bi moom ak lu mën a xew ñu ngi gàttandu bis bi ñu ngi gàttandu bis bi ndax tey boo ci soxloon ak ouvrier rek da ko topp ay fani fani fan pour jéem a jot ci ouvrier bi lu ko waral kenn ku ne yaa ngi njëkkante baatu njëkkante bi sëñ Tuubaa waxoon sëñ ab sëñ sëñ Abdu Lahat di ko sëñ Saali di ko fàttali mhm. mu ne ku ci raw mhm. kon kenn ku ne rek yaa ngi bëgg a raw ci bis bi mhm. ngir bëgg a am loo xam ne say gan bu a fa wax kon loolu dafa dugg ci biir cant gi cant gi ne dama laa waxoon ne ci tàmbali barab bi mooy njëkk a nuru dara yaa ngi dégg yow mi cant tamit nuru dara ndax nit mën tas nag di sol lu xottee ko ak lu froissé ak lu dëgg la boo ko doon tegal nii sax boole bi du ko mën a mu xewlu waaye nag day comportement bu muy amee boo xam dina sañse dina belli mhm. dana ree mhm. amul dara lu koy miti mhm. pour bëgg yow tamit nga ak ji cant kooku kon cant gi euh, li ci jëkk mooy ñi ko sëñ bi waxee rek ndax sëñ bi day wax ni nit bu fekkee yàlla dogal na mënuta defare aw ñam na fexe fa muy defaree ñam ya mu dem toog fa xewlu Mhm. bu boobaa la ka defar ñam ñi am moom dina ko am mhm. kon foofu mhm. point la bu am solo waaye nag euh, ak euh, xew-xewi jamono yii nit ñi ne dinañ defar seen i ñam mu riche bari te ñoo koy lekk bu ñu ca tegee benn loxo suur la koy waral mooy bëgg nañ lu romb rek ñu dugal ko ci biir cin ki te bu boobaa day satira satirine boo xam ni biir du ko mën a lekk kon yéen ñi yor waañ nañu gën a xam yan jumtukaay. Mhm. moo dëppook togg. Mhm. waaye nag nit ñi dañu lu ñu gis rek dugal ko ci. lu ñu mhm. gis gis dugal ko ci. loolu moom <laughs> day dem ba dana ëpp. te nit bu fekkee da ngaa bëgg mu xewlu. da ngay xool lu yemamaay. ci biir togg gi tamit dara jëru muy ëpp. ginnaaw lu war a ëpp rek am na càppaleem goo des sa wet ga moo xam xorom la moo xam suukar la moo xam kaani la moo xam leneen ak leneen la nga defal ko ci ay biteel yu ndaw yoo xam ne ku ca bëgg def dolli ko ca kaani nga daa bëri waaye estomac mënuñu caa lekk mhm. yaa ngi dégg mhm. def loo xam ne suukar si daa bëri waa jabet mënuñu caa lekk mhm. suukaru jabet tamit kër gu ne war na caa mën a ami seseem saa buy defar dara def non sucré indi suukar sa teg ci wetam waaye gan kat bu fekkee daa jóge ndakaaru dikk ni sa gan laa nga yow xelli café gi ni ko dama koo suukar ah man de suukar naa loolu moom na ko ñëpp bàyyi xel xam ne loolu moom maam maam maam déedéet bu mag a mag a dëgg la gan gi moom dama la rupture warut am. lu mu mën a utiliser Ndakaar bu ñëwee da ko fay war a fekk. Mhm. warut a indaale suukaru jabeetam. Mhm. déedéet. déedéet ay course xale yi sax war na ci wut kante bu bari ñi indi ay xale. Mhm. bu ñëwee ñu wutal leen ci course ñuy course. <laughs> yaa ngi dégg. maam ay dàll ci yu ñu sangoo. ay saabu. yooyu day ay mbir yoo xam ni. war na koo mën a wutal nit ñi. dëgg la am na ñoo xam ne sax dañuy xotti ay hôtesse nii. yére yu sëñ Fall am na at moo xam ni. Mm. mas naa gis euh, wàccaayu 4 avril. Mm-hmm. ñu sol tenue di match mu laaj ci lii lan la ñu ko kat euh, maam dañu koy kii dañuy mm. waajal indépendance. Mm. mun leen ah sol tenue di match de suñ bis bi rek la jekk muy fukki fan ak juróom-ñett ci weer safar. waaw mm. xam naa maajaguñu mm. waaye te nii nuróole ko tamit mm. ngir sant si leen sëñ Tuubaa ci bis bi dëgg dëgg la dana baax waaye nag kii sant toujours tamit na fexe ba bu mu génn born yi nga xamee ne moom la lislaam digle mm-hmm. ndax yenn saa yi nag nit day mel noo xam ni mm-hmm. ndax mënoon ni da ngay sant mm-hmm. ñuy màggal ba waxtu julli jot ñu nodd xamoo fa penku féete nga continuer jaxasoo góor ak jigéen ci dal yi nga continuer ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dara diine bokk ci dëgg la te ku fonk diine la mhm. lépp loo koy defal mhm. faw mu ànd ak diine mhm. kon nañ koy waajal ci barab yi nga xamee ni ci dal yi bu waxtu julli jotee ñu noonu nañ ko war a mën a organiser ba kenn ku ne julli jigéen ñi dal yi ñu xam ko góor yi ñu xam ko noonu la ko Sëñ Tuubaa bëggee woon dëgg la dëgg la ndax nit nag mënoo koo cantal ba pare bëgg a génnaat born yi nekkaat ci yeneen bu boobaa da ngaa ne sa bopp waaye dëgg la waaw macha allah am na solo lool alxaaj bi yaay yaatal nga lool ci ni ni ñu war a màggalee ni ñu war a màggalee waaye jëmmi jëmmi bis bi ci nekkuk sëriñ bi la ko la ko sëriñ bi tàmbali woon di ko def mhm. xam naa bëggoon nañu delluwaat ci historique màggal gi ci ci yan at la ko sëriñ bi woote ci yan ak fu ko wootee ak ñooñ nga tuddoon ci tàmbali wax ji mhm. mag ñu baax ñooñu mhm. bi mu leen wootee nu mu leen ko diggalee ak nu ko doon defee ñoom waa moom daanaka ñuy wax les vers les années 1924. Mm-hmm. la woon njaareem. Mm-hmm. ndax dafa am at moo xam ni nit ñu bari bëggoon nañoo ñëw njaareem. Mm-hmm. Euh, tabaski ak sëñ bi. waaye at moomu nag yàlla daa dogal sëñ bi génnul. bi julli jotee nit ñu julli delluwaat seeni kër. waaye bañ ci tegee ay fan yu néew rek. sëñ bi daa ubbi. fi mu ubbee ci la woolu Malick Ndiaye. mu wool ko kilifa yëpp. sëñ Abdou Dieng Balla Faali. Issa Cheikh Issa. maam Thierno. Euh, Cheikh Ibra mm-hmm. euh, ñu ñu bëree baree bari mu woo leen mm-hmm. bi ñu egsee ci la leen xamal ni leen sama borom xamal na ma li ma doon wut rek ci bis bi ñuy wax màggal gi mm-hmm. moom asafurlaa boobu waxagul màggal ci bis bi la ma ko defal muy weer yu ñu nekk bu matee ba wee ñëw ba mat ba ba ba am fukki fan ak juróom-ñett na ngeen ma ko defal ni tëbaskiwaat boobu sëñ bi dafa gisul lu gën a kawee tëbaski ci àdduna ci wàllu xeetu bernde ak xeetu feet Mm-hmm. moo tax mu tuddee woon ko tabaski. Mm-hmm. waaye bi ñu delluwaatee sax naan tabaski waat. Mm-hmm. gis nga ni ne euh, ne am na am na ñoo xam ni. da leen a woowaat. ñoom ñëpp sax la woowaat nee nañ ko tuddee baatu màggal ndax bu ñu ko waxee tabaski day nuróo bi daa. daana leen wax ni leen tamit ku ci am ñaari xar. na rey benn bi ci tabaski benn bi rey màggal. waaye ki nga xam ni nag benn xar la am. na ma ko reyal. ci sant la ma ko sama borom ci bis bi. kon cant moom mënee su ko def te ren di woo. dëgg la loolu tamit faaw nit ñi bàyyi ko xel. Mhm. ndax sëñ bi dacaa teg ni li ci dalee ci ginaar. ba ci gileem. Mhm. kon mi ngi ñuy ci cant gi ban côté la jëm. Mhm, waaw mi ngi mi ngi mi ngi ci orienté. loola nag mooy mooy mooy mooy tëjub liggéeyam. mu def ko bisu sant. waaye jàppoon na ko bien avant moom di ko cant. te boobu tëjaguñ ko. boobu jotagul ndigal suñu borom ñu ko woote ko. Mm-hmm. moo ko doon dundal boppam rek moo ngi ko tàmbali woon samedi 10 août 1895 mm-hmm. ca Mbàkke Baari bis ba muy départ mm-hmm. ca la ko tàmbali woon ba ni muy dikkee njaareem la lam ñu doon leer rek mooy ni saa foofi fukki fan ak juróom-ñetti ñëwaatee ci biir liggéey bi natt yi day gën di tar ba noonu la defoon xëy rek di ko séntu ca njaareem ñu xamal ko bis bi set natt yi jeex loolu nag la woote ni sama gentum bopp matale woo kuy sama ko nag ma sant ci biir màggal gi Euh, màggal ni nag dafa am màggal ñoo xam ay nit ñoo xam ne ay màggaloloog la ñoom seen système bépp màggal la mhm. ñoom tey saa bu ñu demoon bañ màggal bi suba ga dañ naan o oh, màggal gi day jeex na waaye lu fàtte naa ko mhm. ñoom noonu la ñuy def yenn saa yi nag nit wax la ne la ah mhm. màggal nañ ba mu jeex loolu bariwul bariwul mu ñun ñun ñi nga xam ni dañu dund màggal dañ koy xam xam nga la ko warlu suñu tuwaa moo ne man sama cant bopp mataliwul ku sama kook nag ma sant la sama borom ci bis bi

ba yëf yi jeex. Mm-hmm. nga fëgg sa bopp nangam bëggoon naa ko def man ma ko def. dëgg la te boo seetee dëkk bi. Mm-hmm. maam ñim ñor ñëpp buñ gàmmoo ba noppi. Mm-hmm. ci lañ tàmbali di dajale. ñii di condamné. ñii di ubbi compte banque ngir waajal bis bu tedd bi. dëgg la waaye nag moom borom bis bi. seetaanu bis bi benn yoon. dëgg waaw. waaye nag daam fulle ci boppam. képp ku am pas-pas bëgg a màggal ak sëñ Tuubaa rek. la ca war ci màggal dina ko def. dee ci xëy di ci nee rek. jublu ko di dox dem. waaye nag sëñ Tuubaa moom wax dëgg fa yàlla. Hmm. Euh, sol na ci ñun coono yoo xam ne li mu doon def yëpp suñu jëm yee taxoon mu ko def. dëgg la dëgg la hmm. Hmm. kon. buñ ne moom bis. nit ñi war nañu am beneen xeetu xar kanam ak beneen taxawaay. amul kum seeti. képp kuy jullit. ah. war ngaa sonn ci bisam bi. la képp kuy jullit rek. war naa sonn ci bisam bi ndax kooku mënuñu koo fay. yim jànkoonteel bari na bari na bari waay goo xam ne ci xeeti mitit. xeeti coono. xeeti tartar. diggante maa yomb ak ëpp na. Mhm. ndakaaru rek kay. waaw ndakaaru. Mhm. ba ci ba ci ba ci gànnaar gi rek. ay xeeti coono yu tara tara tara tara tara nekk na ko. Mhm. lan a waraloon muy nekk ji nekk ci àdduna àdduna nekk ci jàmm. kon war nañ koy am luñ koy sóoraale. dëgg la coonoom yu tar ya kon nag war nañoo fexe bu nee bisam agsi na. waruñoo dese dara. dëgg la lépp war nañ ko def ci moom. waaw li nga xam am solo ndax gannaaw moom nee na bi muy génn di tukki. ñëwut ku yàlla yónni. wala benn sëriñ ci imaan ak islaam ak mm-hmm. ixsaan boobu mm-hmm. nee na ñëwu ci kenn mm-hmm. mooy bi bi muy dem kon am na lu ko taxoon a jóg te ne woon na damaa meloon ni ku kuy xeeñ xetu parfum bu neex bu neex ñu jàpp ne naa parfum waaw te boobu ëruma sax parfum moo tax kon kon li ko taxoon a jóg ba tey mooy rek moo wuti ku ñëw kuy kuy kuy kuy jullit rek boo ñëwee ci moom jariñu te ëllëg nag kon moom bokk jëmmi boppam ji moom taxu ko woon a jóg kon li ñu fi déggee foofu mooy gannaaw jëmmi boppam ji taxu ko woon jóg man maa ko taxoon a jóg man man damay jàpp personnellement man man Sëñ Tuubaa maa ko taxoon a jóg lu mu wootee war naa caa def lu man ak lu ma mënut war naa caa def lu ma man ak lu ma mënut kon loolu bu ko ñëpp xamoon rek waxuma laa màggal waaye lu Sëñ Tuubaa lu Sëñ Tuubaa woote waaw lu ko ku ko dekkal fii lu mu woote rek lu taxaw mm-hmm. kon loolu lu ñu war a mën a bàyyi xel bu baax baax la nga xool lu am solo ci ki nekk fii nu mu war a teeroo gan ñi mm-hmm. ci xeet yam ko war a toppatoo ay bagaas mm-hmm. waaye day mel ni itam suñ maanaam ñii ñëw mooy ñi bàyyi ko fu fu ne ci àddina di ñëw tubaa ñoom itam am na lu leen war ci ci ci jëmmi màggal gi ci boppam ak jëmmi Tuubaa ci boppam ak jëmmi ñi suñ Tuubaa diglee bis bi ci boppam am na lu leen ci war ñoom itam jar nañoo soññ bu baax a baax. waaw maa ngi lay gën a siyaare bu baax di gën a santaat. ci ànd gi ñu ànd ci waxtaan wi. Mm-hmm. te li ñuy waxtaanee mooy li gën a sëñ bi. mooy bisam bii. alhamdulilah 2013 euh, defoon naa ay sketch théâtral yoo xam ni. Mm-hmm. yu mel nii la. Mm-hmm. am na ci benn euh, série boo xam ne mi ngi doon tudd euh, gan gan yi. gan gan gi la tudd gan gi. gan gi. gan gi. dafa demoon te tëyër. mu ko damaa war a màggali waaye bëggoon naa nga defal benn sipp sipp mm-hmm. bu ñu fant mm-hmm. defal ma tay baas bu ñu décolleté mm-hmm. yaa ngi dégg njëriñ sax moom musóor ndax damay jënd suufa teg ko ci <laughs> bi mu yegsee mi ngi tudd maam jaara fekk na fa benn maire boo xam ni mu ngi ñawlu ñaari robb yoo xam ni da ko war a màggal si ci la ko naan ko jaara mooy li ma scénario bi laa lay leeral dëgg la <laughs> euh, yow da nooy tuddee maam jaara sëñ Tuubaa woote màggal. Mhm. ngay wut sipp booy fant. boole mhm. ko tey baas bu ñu décolleté. ni mhm. <laughs> sa sooga ngay teg. loola la gënalul sëñ Tuubaa. te yow kat da nga ne da ngay sant li sëñ Tuubaa. kon yow lii du sa wareef. déedéet. waaye ni yow téyër bi. am nga ci part de responsabilité bu mag. bu mag war ngaa ñëw ko leen damay màggali. nga ne ko ah màggali lii wa ci lii wa ci gën. boo ca wàccoog moom bu ko defee baax na bu ko deful baax na. waaye kon may wax képp ku war a ñëw ci dëkk bi. fii moom. baax rek lañ fi wootee. Hmm. mooy comportement. Hmm. ndax mënoo ni sëñ Tuubaa laay dalal yi am wotees bu bon boo xam ne ëpp na. Hmm. sëñ Tuubaa laay dalal yi wane wu ñu lay yóbbu ngeen da ngay sangu. tux faa tuxa tux ba sonn. miir bu yàqu bi ne nga dugg fen da ngay tux ni sëñ Tuubaa laay dalal yi yooya war nañ koo mën a muñ. ba delluwaat. dëgg la. mooy yow mii màggal si. ndax ab dëkk kat boo fa dee dem. da ngay seet la waa dëkk ba mel. nga war koo mën a mel ak ñoom. waaye yow mii pour xaar dañ damaa màggal si déedéet màggal si amul. Mm-hmm. màggali moo am. Mm-hmm. ñu màggal ñu ànd màggal. ànd màggal. Mm-hmm. moo am waaye màggal si moom amul. ndax suñu tubaab dafa ne kuy sama kook nag ma sant rek. ànd sant waaw. waaw kuy sama kook mooy koo xam ne lu suñ bëgg bëgg ko. kon yéen ñi ñëw. maa ngi leen di digal kër gu ngeen wàcc. jël leen dara ni ko defal ma ko ci cin li. loolu kat dana tax sa ndab fekk la foofee. dëgg la ndax suñu tubaab nee na. képp koo xam ne yaa ngi dundal fii màggal gi. foo mën a nekk. Mhm. bis penc sa ndab daan la fa fekk. dëgg la. kon. Mhm. bu ñu nii dañoo màggasi rek. Mhm. daal di toog. passage sax bu may wax rek. Uh-huh. waaye gan yi moom buñ dee cent quatre-vingt pour cent yëpp yeewu nañ ci. duñ dem ci kër rek. toog di xoole. la. kon. borom ñi fi dëkk ci dëkk bi nag. seenu màggal moom yàlla dogal na aju ñu ko ci kenn. ndax waajal nañ ko laataa ñu xam gan yi. ñoom liñ gën a bëgg mooy gan yu ñëw war leen a xéewal xéew xéewlu ci xéewal yi ñuy defal sëñ bi mm-hmm. waaye nag ginnaaw ñu ñëpp dañuy wuta yiw mm-hmm. ku ci mën dara mm-hmm. ndax bari aana ñoo xam ne seeni soxla bala moo faju danañ dem ba ginnaaw Ziguinchor mu jéem a faju yi foofu ñooña de amoon ak ganaar rey ko ci màggal gi yéen ci lañ ci bëgg moo ci gën a gaaw faju dëgg la kon. Mhm. ñu ñu ñu gën cee bàyyi xel. Mhm. xam ni. Mhm. booy màggal si. màggal si loxo yi neen moom. yàlla nañ ci yàlla musal. Ah, yaa ngi dégg. bi ci topp. mooy tamit comportement physique bi nga xamee ni. Ah. kii màggal si war ko màggal si. waaw loolu moom faaw ñu gën ko bàyyi xel war nañu am comportement boo xam ne. ku ñu gis dina xam ne. ñun kat ay jullit lañ. suñ tubaab moo woote te duñ ko bëgg a wuy ci. léegi foofu doguma la. ki ki war a bàyyi ko Ndakaaru ba Ndar ba Louga ba Tamba ba Ziguinchor hmm. war a waajal jëm moom ci ci ne ko ci ne ko lislaam bëgge hmm. ci yiw ak set ak sell hmm. kooku ki muy fekk si ci dëkk bi fii ci fii ci Touba ndax mooy warut bàyyi xel kay ñëw alhamdulilah yaa ngi solo ci ci ci melokaan woo xam ne bu ñëwee ko doom am lu ko bett ndax ki jógee Ndar muy ñëw muuru na sol na lu jot mel daal ni lislaam bëgg waaw ba mu ñëwee ci kër gam daal gis na ko koo xam ne moom hmm. euh, la yàlla xam doy na kon foofu lu ñu fi gën a mën a laabiri ñun ñu dëkk ak sëñ Tuubaa te fa seen dëkk ak moom bu faaw waaw xam nga loolu dafa jugg ci li ma njëkkoon a wax ci jàllale gi hmm. nit boo ko sant mënoo hmm. génn ponk lislaam yi ba pare da nga koy da nga koy sant ponk diine yi mënoo ko génn mukk da nga koy sant noo war a mën a def mooy fexe la dëppoog nga def ko ànd kook moom mhm. kon ñun waa dëkk bi faw ñu gën a yeesalaat ndigal yi ndax euh, sëñ moom ñu ko fi wutu woon ñoo ngi doon soññee ci comportement bi nga xamee ni mooy war mooy ji nga xam ne war nañ koo jox dëkk bi mhm. loolu moom soññee lañ koy def guddi ak bëccëg mhm. rawatina nag ñun ñu ni dañuy màggal kon yéen ñi nga xam ne yéen la dalal bu nit nee du ma def bopp neen ba ñibbi ñëw. Hmm. nit ñi du ma sol cheveux nit ñi sama sipa bi du ko fànt yaa ngi dégg bu ñëwee ngalal nag bu ñëwee ba dalal la na fa fekk yooyu. Hmm. moom kat mooy li gën a rafet. Hmm. loolu kat mooy sag bi nga xam ni mooy ñu mooy tax moom lañu sagal suñu diggante ak Cheikhul Khadim. ndax suñ Tuubaa moom lu baax rek la woote. dëgg la waaye mënuñu ni dañ koy sant. ba pare jéem a yor melokaan yoo xam ni. buñ ko xoolee daanaka day génn diine. kon. ñee moom war nañoo mën a wàcc am nañ mel waaye fii nag yàgg nañ ko fay digle mm-hmm. di ko fi samp keneen ku koy def da koy def di ko làqatu mm-hmm. baa nga koy nëbb mm-hmm. waaye fii moom dañ ko fi des ko fi tere dëgg dëgg la waaw tubaarkalla am na solo lool ñu gis ne màggal gi ci suñ tubaab da ko doon def ci jëm moom ci moom rek foofu ci njaarim ak kenn ku ak sa kër di ko sa kër suñu mën Moustapha ñëw di ko defe noonu suñu fàll ñëw woote ko fii ci tubaa secret secret bi nekk ci woote ko suñu fàll woote fii ci Touba ak ni ñuy ñëwee ak li ci aju lépp loolu yow noo noo no noo noo ko dund ak noo ko yëgee. waa xam naa ni sur le plan économique moom car macha allah mooy mooy développé dëkk bi. loolu mm-hmm. rek jaroon na ñu indi ko sur le plan économique. Mm-hmm. ndax bari aana usines yoo xam ni nee na ñoom li ñuy jaay ci weeru safar. Mm-hmm. duñ ko jaay at mi li des ci at bari na bari na lool sax. Euh, tamit lu nit. tëw a tëw a soqeeku tëw a jaay mm-hmm. tëw a am dara mm-hmm. boo yegsee ba weeru safar dugg dina mm-hmm. tàmbalee am dara loolu économiquement sur le plan économique loolu jaroon na màgg rek ñu defe ko Tuuba waaye daa leneen loo xam ne euh, sëñ Fall moom la gënoon a bëgg mooy dundal dëkk bi ndax tey ji dëkk bi mën nga fee wàññi lu tollu ay junni junni kër yoo xam ne màggal rek a taxoon ñu defar ko loolu moo tax dëkkuwaay bi gën di yaatu di gën di bari. Mm-hmm. dëgg la bu màggat amoonul. Mm-hmm. yàlla nañ ci musal sax. Mm-hmm. <laughs> Euh, kon boobaa doo gis loolu. dëgg la kon seen tamsiir. Euh, li ko woote. moom dafa ne rek loo defal sëñ Touba fu ne na waaye Touba la gën a rawe. Touba la gën a rawe dëgg la waaye boo xasee ba pare. boo tàmbaree ci biir. day xam ne sur le plan économique jar na ko. sur le plan social. jar na ko. yaa may dégg sur sur tamit teg ci. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ndax bari aana ñoo xam ni euh, ay sareetu mbaam la ñuy yor. dëgg ma la ak benn ak jullit yi. benn ak jullit gi. Mm-hmm. waaw euh, mooy social gi. ndax euh, nit ñi. ci ci màggal gi la ñuy xamante. te màggal gi rek ko waral. mbokk yoo xam ne ba ñu gëj gisante kañ kañ lañ gisante. màggal gi la ñu gisante. waaye daa am ñoo xam ne fañ dëkk. koom-koom ba taxu koo demee noonu waaye am nañ fas ak sareet. li ñëw ci màggal gi mhm. bu ñuy dem lu mu gàtt gàtt mhm. ñeent fukki junni fanweeri junni mhm. ba ay ay ay juróom benn fukki junni dëgg la di suñ ko yóbbaale ci lañ duggee seen dugg annuel bi nga xamee ni moo xam ay yére yu rafet ak yu ñuy jënd ak yëpp yóbbaat seen dëkk te loolu bu màggal amoon duñ ko am kon lenn rek laa ciy waxaat ci biir loolu nga xam ni plan économique bi moom car macha allah euh, nañu mën a fexe ba jàppandal nit ñi. Mm-hmm. màggal gi. dëgg la jàppandal màggal gi nag mooy dafa jiitu ci jaaykat yi. Mm-hmm. waaye tegu na ci transporteurs yi. waaye bokk na ci ouvrier yi. Mm-hmm. yi ñu ci bari dañu accaparé fukki kër di ko defar. fenn fu ne ñu bëgg faa bàyyi ñaari xale. xale yi defe ko neneen soob. dëgg weesu. loolu moom. bu la ca waaj a tamit. loolu suñ tubaab moom mën la koo jéggal. dëgg la kon. maa ngi jàllale sama mbokk ouvrier yi. Mhm. kenn ku ne la muy jël. Mhm. na ko mën di superviser. di ko mhm. taxawu. lu mu xam ne mën na koo liggéey mu liggéey ko lu mu mënta liggéey mu bàyyi ko. dëgg la yàlla yàlla musal ci tas yaakaar sama kat dama ko war a daloo ci màggal gi. ma bëgg nga defal ma sama chambre à coucher bii. mun la dina noppi. waxtu bi jot mënta noppi. loolu mooy yàlla na ci yàlla musal. dëgg la kon kenn ku ne la nga mën a defar na nga ko defar. waaye na ko defar ca gën gaa selli anam. mooy taxawu ko. ba na mu ko bëggee mu am la ndax kenn ku ne. Mhm. la ngay liggéey ci ngay mën a jaamoo yàlla. Mhm, mhm. ñi nga xam ne tamit ñooy jaay. li ci ëpp mooy nañ jaay produit bu baax. ndax am na ñoo xam ni. Euh, dañuy indi fii ay produits yoo xam ne. produit bi na ak am na produit yoo xam ne sax dëppoowut ak bis bi. dëgg la ci. yaa dégg. am na ñoo xam tamit dañuy jéem a yokk. loolu lépp nag ku koy def. Sëñ Tuubaa ngay defal. dëgg la kii tabax kër gi Sëñ Tuubaa tax muy tabax. kii transporte di yokk bagage. Sëñ Tuubaa lay moo tax mu yokk. yaa may dégg. parce que mënuma xam benn affaire. Uh-huh. tey jii tubaab yi nga xam ne duñu ñu jullit. Mm-hmm. seen avion yi amal seen bopp. Mm-hmm. bu màggal jotee dañuy wàññi paas bi. Mm-hmm. waaye tey jii Sénégal ñëpp li njëkk a xante woo mooy màggal jot. bañ ñu ñaar fu téeméer lay yàpp loolu nag moom euh, ñi nga xam ne ñooy saytu dëkk bi. am na ci part de responsabilité. ndax euh, saret yi mënoo ñëw ci dëkk bi. Euh, di mën a wax ñi téeméer rek ñu bëgg la caa bàyyi nga yeb nit ñi. Mm-hmm. te diggante yi ngay yeb sax taxu koo demee noonu. Mm-hmm. ndax fu bari saret du fa dem. fa muy dem diggante yu gàtt gàtt la. Mm-hmm. loolu moom warta nekk. waaye am na mbokki taalibe yoo xam ne maa ngi ko ci siyaare. ku wax sëñ Fallou Badiane. moom da ab ñaari am rek la yor ca garage ba. bu yeggee day wax fu waay jëm naa la fa yóbbu wax barab sàngam laa yeggee ñu wax ko ku ñoppi côté boobu mu jël leen yóbbu leen. Mm. daal di defaat ñëwaat garage garage bi. dëgg la ay xalem lay jël. wutal leen gasoil neexal leen ñu ko yóbbul gan kooku xam na secret bi sëñ Tuubaa bëgg. te kenn dafay te kenn dafay. Mhm. faw ñu xam ni. Mhm. bis bi du suñu bis. la ki ñu yaakaar tey ëllëg. la. ah. Mhm. ki tax suñu àdduna neex. ki tax suñu alaaxira jag. kooku moo woote nan lañ ci mën a war a taxee. <laughs> dëgg la de. kon ki yor oto. na laa biiri nit ki. ki yor fas na laa biiri nit ki. kiy jaay produit tamit na seet mu yombe waaye ouvrier bi tamit. bu mu ni dafa xat damay tax si nit ñi déedéet. Mhm. na fexe rek nu ci mën a jàppe mhm. ba maam daan naa ko def ay jamono. Mhm. nga xam ne boobu maa ngi dëkk marché Ocass. di faral di ne ci jumaa ji ci su tarxee uh-huh. di dem ak dikk. ndax xam naa balaa waxtaan wi gën a yàgg sax. man damay gën a sant isu tarxee di ñaanal suñu jëwriñ de suñu yaatu yàlla na ko yàlla yokki leer di ñaanal suñu Yuusu mii fi nekk mhm. euh, tawféex suñu Tuubaa wàcc ci kawam ndax jénn yitte rek la muy fu ko suñu aat tegoon rek moom laal suuf mu yëkkati ko mu gën a kawe mhm. ñu fas yéene ko ànd ak moom daanaa def bu ma jógee ci jumaa ji mhm. ñëw ci sama kër bu may dox dama naan ku xamul fu jëm na ma ko laaj yàlla dogal na fi ma fi laaj ci dëkk bi moom bëriwul dëgg la euh, mas namaa daal benn kii sax ma ñëw ci jumaa ji nit di ma loolu laa njëkk xam xam kër ga. <laughs> dëgg la waaw. xam kër ga ndax kër yi yu wër jumaa ji xamoon naa moom laa xamoon. te soriwul jumaa ji mhm. nga xam ne bu may dox. Mhm. dama naan fu waay xam. Mhm. ku xamul fu mu na ma ko laaj. waaw di nga am nag yu bari. dëgg la di am ñoo xam ne ah, kii dalaa bëgg a sàcc toppal fii <laughs> nii ay tappalekat lañ. ah dëgg waaye boobu taw fexe sëñ bi rek ngay bëgg. wallaay dëgg ndax man sama yitte jëpp mooy. ma bëgg nit ñu kontaan. dëgg la dëgg la waaw sama kër tamit dinaa fexe. bagat ni moom duñ mer dëgg la dëgg la bu jëree liib sax dinaa leen liibal. waaw ah. kontaan. Mm, mm, mm. yaa dégg <laughs> bañ naa ko ba sax. Euh, lu mu gàtt gàtt des na wut ñun fukki mbubb yoo xam ne. dañ koy ñaw ñu ko lislaam bëggee. moom sër doon ay ndoket yu baax. am musóor bu ñëwee ñu jox leen ko addi si ñu wax. ñu mën koo sol mm-hmm. ànd ak ñun bëgg. waaye gan xam nga ni tamit bu jikkee nga wutal ko foo ko dara. Mm-hmm. jox ko bu rafet bu mu sol. Mm-hmm. wax dëgg fa yàlla du fàttewaat fa mu daloon. déedéet du ko fàtte de. du fàtte du fàtte fa mu daloon waaw am na solo loolu si àllaaji <laughs> macha allah. jërëjëf dañuy gis ne maanaam màggalu Tuubaa gi. Hmm. fii jamono ni jamono yi soppi ko. Hmm. gis nañ jamono yi muy dugg ci nawet. waaw te gis ne Tuubaa léeg-léeg mu am kër yu xaw a doy waar ci ni ndox ma dafa ndox may mel. Hmm. te daanam daanam am ami gan tamit ñoom wax dëgg yàlla di màggal bu baax a baax. te léeg-léeg nag mu xaw a métti ci ñoom. ci ni ñu war a màggale. ak situation bi ni nawet bi tëddee. Mm-hmm. ñooñu tey noo jàpp ne waras nañ ko mën a jàppale seen diggante kilifa yi ak gan ñi daa bàyyi ko ci dëkk yi di ñëw ci ñoom ba seenu màggal gën a mën a tegu ci yoon ba ñu amee ko ni ko bëggee. Euh, ñooñu moom xanaa di leen masaw rek. Mm-hmm. maa ngi leen di masaw bu baax a baax a baax. Mm-hmm. rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkk Ngiraaneem. jàpp kër laat dem noonu ci kaw. miti na nag miti na lool lool lool ñoo xam ni at mu jot daan nañ ñëw ci yow di fi dal. Mhm. ren kat ñu ni amuñu fu ñu dal. loolu nag euh, bu fekkoon yàlla dogal nañu organiser ko seeni gan yooyu mënees nañ leen a jalaat mhm. am yeneen i kër yu leen dal ku mel ne masalan man mi ñu ni kër sàngam gi parce que fan yi maa ngi dugg taxi boo xam ni. Mhm. waa ji dama ko doon wax ni damaa bëgg gan mu ni ma. ren da bu fekkee ndox mi nangu suñu kër ña jotoon na yor dinaa la ko indi. ba ñu ngi ci waxtaan nii. pour mu indil ma ñooña. <laughs> ñooña tamit kenn ku ne bu ko ca deewoon def ko ca rek. Mm-hmm. bu boobaa mel nañ ci jàppale suñ Sëriñ Tuubaa mm-hmm. waaye ñooñu moom ñu jar a taxawu lañ. dëgg la ñu jar a taxawu mm-hmm. kon maa ngi wax ni rek. ñooñu nga xam ne ñoo dëkk ci ndox mi. ku leen fa mën a fekk laaj leen seen gan nañ amoon da jël leen dalal leen. dinañ ci am solo. waaye ku ci am na kër gu yaatu ba mën a jël ñooñu dalal leen boole ko seeni gan. moo ëpp solo. dëgg loolu am na solo lool. waaye màggalu nawet nag. Mhm. day màggal goo xam ne dañ koo war a gën a mën a waajal. Mhm. surtout. Euh, ñi nga xame ni yàlla dogal na kër yi bariwul lool. Mhm. war nañoo mën a fexe ndax nawet nit ñi mënuñoo ne ci biti. faw ñu ne ci biir. ab néeg boo ko amee la ëppoon solo. mooy lal ba fa nekk. nga wekki ko sëpp ko denc tëj say armoire. jël néeg bi lal lépp ay mat la hmm. boobaa bu fa ñeent waroon dëkk juróom-ñaar wala juróom-ñett mën nañ faa nekk hmm. dal ba gën a yaatu hmm. loolu bokk na ci secret yoo xam ni mënees nañ cee gën a dalal gan ndax waa kër gi moom ñun waa Touba dañoo war a génn néeg yi abal ko gan yi loolu wax ci ab laat la ñu ci bari ñi ngi koy def waaye nag gën leen koo gën a yaatalal tamit teg ci gën nga yaatal mooy fexe ba lépp lu yàqu mbaa luy réer ñu ne ko karaj tëj bàyyi leen néeg bi génn daal dem mhm. loolu manees nañu koo def mhm. may soññaat tamit mhm. ñi xam ne ñoo ne ci dëkk bi seenu kër yi defar gi ndax koñ bi foofu romb ay móol a nga fa ay saar suufa nga fa yu bare nga fa yooyu nag lu waaye tële tële tële defar bañ ni kon nag màggal gi jot na bu dee ay birig war nga koo jële ca mbedd ma mhm. bu dee jalu suuf war nga koo jële ca mbedd ma mhm. bu dee jalu xeer war nga koo mën a jële sa mbedd ma mhm. ndax encombrement yooyu noonu day gën a euh, fexe ba màggal gën diis te ñun ñii ñëpp jën yitte la ñu am mooy ku ñëw ci dëkk bi ñëw ci anam gu baax ku ci dëkk ñëw ci anam gu neex kenn ku ne tamit fa nga nekk loo ci mën a góor góorlu ba mën a sëkk ba oto mën a jàll loolu dara ëpp ko solo waaye am na ñoo xam ne bu ñu amoon seen buntu kër gis naa ko ci dëkk bi bari na fi bu hmm. leen leeral oto mën na fay jaar ci bunt ba ñoom pono lañ fay gas hmm. oto ba bëgg a jaar fee ndox ma yàlla na ci yàlla musal dëgg dëgg yàlla na ci yàlla musal lool hmm. waaw te loolu bari na ci dëkk bi waaye obstacle yi nga xam ne ba yàq bu nekk barab sàngam dafaa war a jóge loolu nag ñi nga xam ne mën naa am ñooy saytu màggal gi seen xel mën na caa nekk waaye bu ca nekkul tamit maa ngi leen koy delloo rek ñu xam ne oto yu yàqu yu yàq yi ci dëkk bi jali suuf yi jali xeer yi yooyu yëpp waras na ko mën a maasale ba mbedd dëkk bépp doon mbedd yu leer mm. ñu xam ni kat dëkk bi am na weneen xel kanam gu bees lu mm. ko waral dafa am bisam mm-hmm. te bis bi nag kenn waru fee ñëw di am ay difficulté dëgg la di jàllalee tamit passage nga xam ne dañoo am foosi mbedd mm-hmm. ñu gën ñu ciy dimbali ba nuñ ko gën a waggare ndax bari ànd ñoo xam ne seeni oto ca foos nangam rek fa fa fa la màggale mm-hmm. jaar fa di moytu ndox mi ndekete ñu ngi ci biir foos bi te nag wax dëgg fa yàlla dëkk bi moom war naa am lu ne ba mu des force mbedd mhm. ndax Touba rek ngay am vingt cinq sur vingt trente sur vingt vingt sur mhm. loola loo ko tabax tabax war ngaa mën a tabax foos ci biir kër gi dëgg la waaye bu fekkee mbeddum dix mètres la ñaari nit bokk kenn ku ne bëgg a tabax foos ñaar tu mën faa romb te loolu bari na ci dëkk bi mhm. di ñaan kenn ku ne daal benn pas-pas la war a am mooy gani sëñ Touba yi bu ñu jugee ci dëkk bi bay génn waruñoo yooyu seen alxaaji biyaay ah, kàddu yi am na solo lool te itam leer na te itam képp ku di taalibe te Sëñ Tuubaa rek ñor la war nga cee mën a jariñu bu baax a baax ndax bis bi nga xam ne moom na sëriñ bi ne woon na ngeen ma ci santale yàlla ndax lépp li mu bëggoon ci ci boroomam te la bëggoon ci yàlla di di lu fàdd loo xam ne ñeneen ñu dul moom ñu bëggoon nañ ko mënuñu ko am yàlla jël jël lépp jox ila yaqada allahu ma lam yakuni nga xam ne moom la fàddu woon yàlla jël lépp jox te ci liggéeyam mboobu itam fa mu doon liggéeyee li fàdd woon bépp wàllu itam yàlla jël ko jox ko ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci liggéeyal ko ci julli ci moom kon bu nee ba yàlla xéwale ko xéwal koo xam ne moom lott na ne nee na lott naa ci sant sama boroom kon ñëw leen sant li ma yàlla kon mooy ñëwleen leen ma yàlla ndax ak sukuru muy baatu cant daa bokk ci gën a màgg daa bokk ci gën a màgg ndax suñ borom nee na ku sant ma dolli la safaanub safaanub sant nag mooy weddi mooy weddi xéewal dinañ ci yàlla musal bari na ay ñu bewoon ci àddina yàlla defal leen xéewal dañ daan jël xéewal gi di ko moomale seen bopp duñ ci sant yàlla mukk ba mujj bew kon ñàkk sant yàlla nañ ci yàlla musal te al hasan daa wax ne bokk na ci li saxal xéewal sant yàlla sant day tax xéewal sax waaye ñàkk sant day tax xéewal dem kon yàlla nañ ci yàlla musal kon sëriñ dafa xam ne cant min azam al ibadat ngi bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg loolu moo tax sëriñ bi woote nañ ma sant yàlla ndax mënoon na mënoon naa woote geneen anam ak jaamu yàlla waaye defu ko daa woote cant kon cant googu nag mu waxal ko boppam ne na li tàmbalee ci ginaar ba ci gëléem comme ni si alaaji waxee loola lu ci waaye man nang ci góor góorlu ci waay man rek nang ci góorgóorlu baax a baax xam naa day mel ni agsi nañu fi ñu war a yëkkatee jotaay bi euh, ndax benn waxtu lañu amoon kon dañuy jox suñu alxaaji biyaayi bu ko defee mu jàllale kàddu yi tàggoo ba yeneen jëmmi jamono ci beneen jotaay incha allah. waaw sëñ Tamsir maa ngi lay siyaare bu baax a baax. xam naa dafa am ponk bu am solo. Mm-hmm. ndax dama am sama gaay yoo xam ni dama leen di wax ay màggaloloog laa leen di woowee. Mm-hmm. di ci am ñu may tudd seen tur. ku mel ni mm. sëñ Jilim Bas moom sëñ Bas mu sëñ Fàllu. Mm. Euh, sëñ Modou Ndiaye mi ngi dëkk fii ci euh, Kër Baye Laat. Mm-hmm. sëñ Ibra Guèye. Mm-hmm. Euh, sëñ Ibra mm-hmm. ñoom sëñ Ousmane Baye. bari ci nit ñoo xam ne. maa ngi wax sëñ Abdoulaye Ndiaye moom Cheikh Bas. bëgg nekk sëñ Cheikh Bas Abdoulaye Ndiaye. mu Sadex bëgg màggal lool. ñooñu dem nañ ba nit ñi nga xam ne dañoo bëgg màggal. li nga am seen yitte ji màggal la bu ñu ma gisee sax dañ may jéem présent présenté ñooñ ma xamante ak ñoom mhm. loolu am naa ci ay nit nit nit nit ñoo xam ne boo leen tudd mhm. waaye sëñ Jili moom sax bis damaa mas a wax ni ma mhm. lañ ci doon waxtaan ma ni ko màggal da day neexee ci kër di yàqoo ci gaaraas màggal day neexee ci kër di yàqoo ci gaaraas ni ma luy loolu ma ni ko nit ki day ñëw ñu berndeel ko ci màggal ki gis na ni màggal gi njaay mi ciy jaay bagaas yi day yomb mhm. màggale ba pare mhm. mu dem daara xuddoos jënd fa lam jënd yépp mhm. dese benn junni bi war a paasee dem Dakar bi mu dikkee egsi rek fekk oto manqué na dem na oto yépp dem nañ indi nay bagage am ndax kuy ñibbi la plupart da yori bagage ndax yi ngay jëndaata sax mënutu départ delluwaat te dal ba ndax bu delluwaatee hmm. coono yi ñëw fi képp te bu delluwaatee paas hmm. bi day gën a jeex dëgg la hmm. kon faw mu toog foofu jëm fay yendu di xaar oto yi xëyoon daal di ñëwaat fekk si ko kon bu boobaa nag la cay tane fekk boobaa nag moom añ lam yor te mënu caa añ yaa ngi dégg moom mu mënu caa añ ndax bis bu ci añee rek day métti lam yu mën a def mooy toog foofu muñ waaye nag ku leen fa bett ak ay sandis mhm. ay barketu mbaxal mhm. ay mbuusi beñe dëgg la <laughs> dana am solo lool kon de passage maa ngi koy wax ñëpp mhm. nii garage yi nga xam ni fa la ñu faral di wutee oto waxtu añ moom fekk fa ña client ya ginnaaw màggal di ko jox gunge ko li li nga wax ni dal na suñu ngeen gan daaw nga xam mi ngi jëmoon Ziguinchor waaw oto ba mu duggoon dañoo dem bàyyi leen yàgg nañ fa lool ngir doo ko demaat ko kon jóge la waaw mooy di toppaat gannaaw màggal gi. waaw gis nga ki ma lay wax nii nii sëñ Jilim sëñ Bas mu sëñ Fàllu mii. Mm-hmm. léegi rek laa jógee këram. Mm-hmm. at moom bi ma ko waxee dama màggal ba ci suba ga rek ndax man bu ma màggalee bi suba gi li may sonn sonn du ma nelaw. Mm-hmm. ci réseaux sociaux yi laay nekk di xool diggante Facebook bi nii. nit ñi liñ màggal. ma ciy jël sama bigga feuille di xool ñi ma raw ma xool déwén nu may def ba romb leen. Mhm. waaye man damaa bëgg di raw toujours ndax exception rek laa bëgg a def. la waaw yaa ngi dégg ci la ni ma ah maa ngi garage da man ko xam ah, ne daa am naa samay mbanee mbaxal ma ngi koy séddale. Mhm. kon loolu ñëpp la war. dëgg rawatina tamit. Mhm. ñi ci euh, kawtali bi. di sant bu baax a baax dalal gi. ndax defe naa ni lu mel nii bariwul lu ma koy def ci àdduna. ku ma ko woon ci leen du ma ko def man màggal la ma jaral màggal la ma jaral lépp. ndax màggal. mooy sama lépp. Mm-hmm. tax na namuma dara tax na li may bëgg yëpp car macha allah mi ngi mm-hmm. ndax sëñ Tuubaa benn bis la bëgg sëñ Tuubaa moom lañ bëgg. Mm-hmm. moom la woote ñu santale ko ci. kon faw ñu gore ci dem ba jeex dañuy dem ba jeex rek. la plupart dañuy def ci safar gi nii nii nii fi may waxee yow nii daanaka ku xat ci liggéey laa lool sax. car macha waaye dañ dañ may gis ne ma dangaa jeex dangaa ngaa may sant sëñ Tuubaa nag ci ginnaaw bi ñu xamee mel naa amal ni ko jeex yooyu. Mm. ndax li ma bëgg maa ngi koy wut. dëgg la <laughs> ndax ñun ñu bëgg a màggal. Mm-hmm. ak ko atteindre a cent pour cent. Mm-hmm. ku ko bëgg a def sa teeg bakkan rek mënta sotti. ndax faaw dañuy fàttaliku sëñ Abdoulaye dafa ni. Mm-hmm. daa xëy bis fas yéenee tegoo natt ñëw ni ko bis nga tey natt yi jeex na kon ñun toujours rek ci natt yooyu dañ ciy mosaale bu ñu fekkee bëgg nañoo màggal na faaw mu ànd ak ci waaw tey jii nii sëñ Cheikh Bass mi nga xam ne moo yor comité d'organisation yàlla na ko sëñ Tuubaa gën a taxawu boo ko gisoon ci waxtu yu màggal googu da nga ko yërëm ci coono yu sa nee na yee naa leen ci ne. Mm-hmm. njëriñ ngalaaw coono képp luy ñëwee. kese waaw loolu yee naa leen ci. Mm-hmm. njëriñ balaa ñëw. Mm-hmm. da ngaa coono coono bu métti. doo ko mën a jëriñu. léegi nag euh, xam naa waxtu yu jot na. sama tamit maa ngi lay siyaare bu baax. di sama baay sama sama nijaay. sëñ Fallou Galassy la. Euh, moom li may wax ci tàmbali bi rek. Mhm. lu mel nii yàggoon na ko bëgg. dëgg la te xam naa sama diggante ak màggal. Mhm. jaxasoo nañ ati at tax mu sama tur safar rek la may woowee wala màggal barke Sëñ Tuubaa. Mhm, ay ati ati at. ma ko ngi fàttali ko màggal bu ko xam dañoo màggal ba ci suba ga gi boobu ma nga Lamfal FM. ay woo ma ni ma béyaa euh, Lamfal da màggal la ñuy waxtaanee. boobu laa njëkk a wote ci rajo. ma après daa dugg bi ma duggee ma ni sëñ Fall na nga def mu ni kookan la ko man la safar mu ni laay. moo ko sëñ gànn ñoo ko doon def hmm. mu ne gànn déglu waaju soo fay wax nii nag déglu ko <laughs> mu ne ko leen daal laa leen wax ci gàttal hmm. sëñ naa Jibril daal ba mu ñëwee njaareem wax sëñ Tuubaa bis bi hmm. sëñ Tuubaa daa jël peñe guro jox ko góor ñëpp jël ay peñe xeesi tàngal jox ko jigéen ñi wax leen bis bi nag man leen dem leen xool ci histoire ku ñu mës a jox guro mbaa tàngal séddale ko ci bis nan ngay def boo amee natt di ko natt dëgg la boo amee compte banque ko teggi kontaan. Mhm. Mhm. waaw. Mhm. waaye suñu laa def ni gor su la ma saana teral. da nga ñaan yàlla naa fekk ci bis ba def ca lu ma mënul. suñu tubaab teral naa am na bis mooy fukki fan juróom-ñett ci weer safar. nañ ci sonn. coono gi tamit daanaka di nur coono rek waaye lépp moo koy moo koy moo koy jël ndax damay bëgg a tabax mhm. damay bëgg a jënd nag di ci dox sëñ bi indi nag ak tabax yi yëpp te duma ci doon dara waaye bëgg a fasoo rek ak dox ci rek la ñu war a def suñu diggante ak sëñ Tuubaa mhm. di ñaanal sama waajuru jigéen mhm. yàlla wéral ko bu baax a baax a baax ndax man lu ma xam ci màggal isu tarxee ma ko xamal waaye ba ma ci war a toll nag nekk xale moom fa yóbbu teete ma taxaw ma man ak samay rak ba tey jii wax dëgg fa yàlla ñoo ngi gën a sant Sëñ Tuubaa dëgg la ma di waa ñaanal sama waa kër yëpp rek wér ak fan wu gudd ak xew li bari mm. jërëjëf Sëñ Tamsir sant nañu baax baax sant a baax di a baax sama mbokkum taalibe Sëñ Moussa Gueye xasida mm. ci Daaru xam naa mi ngi teewlu mm. ñu ngi am kontaante bu baax a baax ci jotaay wax dëgg yàlla ndax si Abdou Khadir daa waxoon ne kuy defal sa bis kuy bis du la jaaxal waaw du la jaaxal kon bis moom boroom defal na ko ba noppi hmm. kon ñun dañuy sàkkoo yegg ci yàlla jaare ko ci moom waaw loolu loolu rek la ñun ñoo fa yéene jariñu ci Sëñ Tuubaa waaye moom léppam mat na sa keroog bam bàyyi koo fii ci Mbàkke Bari kon ñu ngi santaat bu baax mbokki taalibe yi di bu baax suñu Fallou Gala silla euh, jëwrin ak Sëñ Abibou Thiam mu nekkoon ci machine bi ak mbokki taalibe yëpp euh, di ñaan yàlla defal ñu xéwal ak sutura te nangul ñu ma ñu xéewal ngun mën a màggale sëñ Tuubaa bésam bi ñu teewe ko si Muntaxa yàgg fi loolu te wér asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu def maam antal pare may làpptoo xarnu bi aw ma maqaamam di la woo waaye murid